na ci lim gën a mën a doon mooy ak cofeel ci doomu aadama yi maanaam des fois nga gis koo xamante ne nekk si ak kon kenn yu ko bëgg wala des fois maanaam euh, lu mu dugg daal nit ñu duñ sawar wala buy wax sax nit ñi duñ sawar dégg lay wax day am wala benn fu mu génn ñu ne génnati na te sangoo ko incha allah rabbi dañu leen la bëgg la gisu sax mun koy sax dañ lay doomu aadama parce que day tax maanaam yi de bëriwul ñu ne maanaam xam-xam boo ko boo si jëriñoo rek lu yàgg-yàgg day nax saa rek. xam day mën a jàpp xam waaw da ngaa war a xam ba pare di xam le parce que secret nga joxe tamit maanaam doo ci am doo ci am loo xamante ni maanaam lu lay gaañe doon maanaam tiyaaba rek nga ci am yàlla tiyaaba la ci bindal moo tax boo ko amee rek maanaam xam ko mais daal ku bëgg bay rek yaa war a yaa ba nga bind ko rek baax na sax allah rabbi maanaam nit ñi leen a sopp lool te buñ la gisu la laaj atay ñu jëm ji yaa fa taaxu mooy naka nga ciy xóotale waaw yaa fa moom mooy aju ji yaa fa taaxu mooy ko xam daa tëju ko xam day lijjanti ba sonn du am dara koo xamante day dem ci marché bi di lijjanti bay bëgg dee wala day jaay ba sonn bi jara waaye koo xamante ni maanaam lépp lu a doon maanaam euh, dafa lijjanti mais day taxaw wala ñoo lépp lu ñu yor seen loxo a utiliser wu yaa dara gën boo ko boolee waaye sokal laa xam ne sana asisan bu la neexee na nga bind ko bu la nga bind yaa fa taaxu soixante-cinq fois mu ne wa yasalukallaahu boole ko wasoosoor parce que wa yasalukallaahu wa yasalukallaahu azizan dafa jàpp garab wasoosoor loo xam ne bëri wax mu ne képp koy moom kenn mënu laa tee ubbeeku ci àdduna a doon même yow bu la nit yow doo tekki sa àdduna sax doo am dara sa boo ko defee faw yàlla dina la musal parce que yàlla tamit dafa nekk ko dafa nekk koo xamante ni maanaam ko am yërmande la doomu aadama ñàkk ko xam waaye boo xamee dëgg nga ko jaar ak moom wala nga woo ko ay turam incha allah rabbi lépp loo ko woo